asalaamaaleykum asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Sénégal baleen xel lam daan fàttali mooy baaloonte ak baleen xel lam daan fàttali mooy baaloonte ak bal naa leen na ngeen ma baal ngir Sëriñ Saaliw lam daan fàttali mooy baal balante ak bal naa leen na ngeen ma baal baal naa leen na baal ngir Serigne maa ngi tuub sa moom sa borom nga xam ne bu bu bu bu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 mu seere ne ma maa ngi diine lislaam yi ci laa ma seere ne diine lislaam yi ci laa te duma ko booleeg dara. te duma ko booleeg dara. lu dul moom nag. lu dul moom nag. aw ma ca defar aw ma ca yàq. aw ma ca defar aw ma ca yàq. doonu ma ca dara. doonu ma ca dara. fuj defar jaam ba mu wootee la ñëpp fa xëpp ne ak say mbir ci la ñaan yàlla saaliw yéenem ja ngir ayubu jaam ni sering saniu demul demande ul clergi mingi nitim numba ke kanam gani beti allahangi nasayu ma jahle natalam layde sel samayene Thank <laughs> you namanya? Jamrek Balai. Gereja Balai. deglul ma wax laa ci mbiram ngir nga jariñoo ci xewal ye sëriñ saali woo koy joxe ak fu mu mën a jaar loxoom. waaw Serigne Saliou ko joxe. xam-xam yi xam nañ sama wax. waaw borom jamono ñépp ko wax. waaw jiite fa kooko yi. yaa yu Cheikh Saal yaa kawe yaa baax yaa gore yaa maandu yaa jub yaa tabe yaay fal yaay folli yaa moom ay sàmm diine amoo dendandoo yaa waaw waaye nag ñu ma gisee ci laa xamee ni billaahi ñoo la umpale billaahi ñoo la umpale billaahi ku la feccal lu xamul billaahi ku la tàcc lu xamul yàlla xanaa sa sutura lépp nga jox sa saaliw aqi mindeef yaa ko matal aqi boromam jaa azal ku mel ni kii nag amatul kenn la seexi saaliw daawuñu dégg ay waxam musula bere leen ni moo dàq jëf gu am ci jamono moom saalihu ma wax la moom lam njëkk a wax jox leen ma ndaw yi ma tabax la seexi bamba daa tabax jama loolu la rek a tax nga jël si ba ci sama tolluwaay boobee boo ko dee seetlu sax mbir loo xam ni nekke moom lépp ay dogal nu daa tërbiya nun nu daa tarxiya bi tasfiya ay ki moonu daawa dëgg dundal kafee ci suukar mustajal xeeti payoor naa nañ ma jël xeeti payoor naa nañ ma jël bambaa ko saakoon bambaa ko ñaan tukki ba liggéey ba ngir am kile wahab li yal hilma sa hil hawal amal asaali allazi yukammilu amal Matali serin bir bi yermandem kiki kamono baa sëriñ saaliw mbakke yaaram danu gëlëmoon ci ñu bindee sëriñ saaliw mbakke yaaram nanu santaat borom dooga sëriñ saaliw mbakke yaaram mooy ki yore mbir mooñ الله شر الأذان قد خجعا بجاه أفضل من لله قد لجعا حمدي لرب كريم لا شريك له صدري اليوم ورنسات عن هراء محمد صلوات الله في أبد عليه به كل به قراء أدعو إله الذي أمت مواهبه بجملة الخلق ما يختار من براء اشهده جل أعظاما وكرمني تكريم هادئ وكل من لغا بريئا الرحمن حب لجميع الخلق رحمة من يثني عن الشر من قرآنه قرأ خذ أمة المثلى عن كل مبصرة وترحم الخلق يا من جدهم بدأ يا مالك الملك يا من جل عن خير ခင်ကြမင်းအရွာလားညခင်ကြမင်းအရွာလားအဲဒီအရတာနာမိုင်းကူးပြာဝန်ကြလားအံကြိုရင်ညခင်ကြမင်းအရွာရာဒီအရတာအဟောထမပဒနာဟုတ်သူဝင်ပါရယ်ညာအံဇနီဝန်လာပဒရာဇာဆုဘဟာနာရဘ်ကရ်မီဆေအမအရှော